ana tijaan yee gàmm gi ñëw na burdu bi ñëw na ilaati wa ألا حسموا ليلة الولادة حسبة إذا لم يكن نحو الحرام حدود mbokk yi Seydi El Hadji Malick moo ko woote woon 1902 ba 2022 loolu mooy 120e édition gàmmu de Tivaouane ci njiital Serigne Babacar Sy Mansour mbokk yi di ñaanal mbooleem taalibi Cheikh Sidi Ahmed Tidiane yi ak mbooleem jullit yi nga xam ne ñi ngi jëm Tivaouane di leen wax ne yéen ñi nga xam ne da ngeen yor ay entreprise bëgg ni ngeen di def yaatu siiw jokkoo leen ak Wilane TV ak yéen ñi nga xam ne ay daayira ngeen yor bëgg ñu defal leen ay reportage ci gàmmu bi mbokk yi Wilane TV daal dafa jógaat jóg bu bees ci gàmm 2022 bi nga xam ne mooy symboliser centenaire u Cheikh Seydil Hadji Malick mbokk yi di ñaanal Serigne Babacar Sy Mansour ak Khalifa ak mboolem njabootu Cheikh Seydil Hadji Malick gàmm ak jàmm Wilane TV ak yéen ilaa Tiwaawan rek. bijaa زمان محبوب وجاد المبارك وجهي إليكم منتهى أملي يا رب حالي فلا يفا عليك علي لم تخف فيك قلوب صاحب الأزل عبادك الأعظم المفتوح يدخل كل أتاك فإن لم يدخل أن يمل توسلي ربنا مولاي صلي على خير بركة والجولي سيدنا أحمد المحمود شافعنا والفاتح المغلق المسدود عن